bonsoir seen amee internet yéen mi safar diñ seetaan fii si Actubuzz TV mbégte la am ak contentement yaataraloo ak yéen saa su nekk comme ni ñu koy defee si actualité people ñu fas yéene waxtaanee ay ponk yu bëri bëri jëmee ko si li nga xamante ne ni dal na suñu kaw li nga xamante mooy altine bi ñu génn génnum àdduna Fatou Kiné Dème moom nag nekk journaliste fële ca TFM ñu gënoon ko ràññee si wàllum liggéeyam mu xarañ ci lool di ko ñaanal yal na suuf tubaa oyof ci kawam di ko jaale képp rek koo xamante ne yaa ngi yëngatu ci wàllum presse waaye tamit dañuy demaat ci beneen décès bi nga xamante ni ki altine googu la amaat ki nga xamante moom mooy Jean Paul Dalméda nekk nag acteur cinéma fii ci suñum réew ñu bëri nag ràññee ko lool ci xaram ceem eh, nga xamante ne ni mooy série yi mu doon def ak waa Even Prod ñu bëri na ràññee woon ko ci turu Abdel série infidèle bi nga xamante ne tourné na ko eh, ca maison de production boobu noonu moom naka gannaaw ba mu defee accident ci benn taxi camion dal seen kaw na naka noonee na def na 15 jours si biir euh, euh, coma ni ki altine bi nag la yàlla mujjee def euh, li gën mu wàcc liggéey moom na bi mu génnee àdduna na ak léegi nag boobu ak léegi nag polémique yaa ngi bëri ndax gis nañ ni ku ci nekk rek yaa ngi koy nakarlu ku ci nekk yaa ngi koy estati di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana fee mu jëm ba tax na suñu ay naataangoo dem seeti suñu. ay ustaas yi nga xamante ne ni yàlla may na leen ah, xam-xam ci wàllum diine gi ñoom nag yéen a ñu yàbb ci mbir mi ñooy nit ki bu fekkente ne ni bokkoo leen diine bu génnee àdduna amoo droit nga ñaanal ko ñu ne même bu fekkente nit ki yéen ñaar da ngeen nekkoon ay xarit ngeen doon ànd ngeen jégalante lool ñu ne loolu nekkul ñoom seeni i kàddu waaye kàddu la goo xamante ne dañ ko bind ci biir alxuraan te yonent bi alayhi wasalaam moom tamit bi mu ñëwee dafa gën a dëggal joojule kàddu ñu ndax ah, borom bu génnee sa àdduna yow mi di jullit amoo droit dem moom mooy euh, fi ñu koy dencee ci fàttaliku nag moom Jean Paul euh, moom Jean Paul Dalméda ñu ngi ko nar a jébbal boromam ndiki suba ca àjjuma fële ca cimetière euh, Saint-Lazare bi ñu ko jugee dañuy tàbb li nga xamante ne mooy màggal Touba euh, tàbbee ko nga xamante ne moom mooy Ngoy Fall Ngoy Fall na nekk na soxna ci Askia Touré moom na chaque année nag màggal dañ koy gis ni day def ay takkaayu or ba tax na loolu day indi ay yu bëri ren ñu gisati mu def li nga xamante ne ni da doon def ci màggal ren da koo moom na bañ ko laajee nag nee na or euh, boo ko amee da war a di ko takk di ko fësal nee na nag képp rek koo xamante ni tamit amoo tamit li nga xamante moom mooy takkum or nee na nga dem wuti ji ko euh, looloo gën nit ñi di bàyyi di ko ngawti ngawtee saay bu màggal gi jotee nee na moom lépp rek lu muy def rek da koy def si ngir borom màggal gi waaye neen tamit da koy def si ki nga xamante ne moom mooy euh, Serigne Saliou Mbacke ba tax na nag mu yëkkati ay kàddu ba rongoñam dal ci kawam bañ ko laajee mu ne ren dafa am nakar ndax saa su nekk waajuram bu jigéen day ànd ak moom ci xamante ne moom mooy ci màggal gi nee na wante ren moom waajuram bu jigéen euh, yàlla dafa def li gën mu wàcc liggéey ba tax na moom borom këram di euh, Askia Touré yëkkati kàddu nee na mu ngi sant di gërëm ki nga xamante ne ni moom mooy soxnaam di Ngoy Fall nee na nag lépp loo xamante ne nag defaru ko soxnaam si nee na da koo amul nee ndax soxnaam xaritam la di genn wàllam ba tax na moom lépp lu mu am rek fas yéene na koo yéene soxnam soosu noonu buñ ci jugee nañuy tàbbi soxna Aida soxna Aida moom itamit nag ren tamit def na li nga xamante ne moom mooy euh, màggalam comme ni mu koy defee gannaaw bu borom këram làkkoo moom a na taalibeem na 50 millions suñu ay koppar nga xam xamante moom mooy ah, Mara Niass Mara Mara Niass nag kenn dootu ko présenté moom na nekk na nag sëriñ boo xamante ne moom nag da koy wax sax nee na moom nekkul comme sëriñ yooyu nga xamante ne dañuy sol ay grand boubou eh, di ngande ngandelu nee na moom sëriñu eh, jeunesse bi la ñu gis na ren moom tamit nag dafa woote fële ca màggal Touba waaye nag li gën a jaaxal nañu mooy dañ koo gis moom Mara Niass mu génn si beneen facette parce que gis nañ ni ñu doon tëgg si cant gi dañ doon tëgg li nga xamante moom mooy suus suus taj ba tax na ñu gis si benn ay ay ay ay taalibe moom Mara doon ko fekk nag bi loolu génnee nag affaire bu def nag euh, viral ci réseaux sociaux ba tax na nag ñu bëri nag yëkkati kàddu jagle ko ndax nee nañu Mara Niass kenn xamee ko loolu nee nañ moom li ñu ko xamee mooy saa su nekk rek day wootee ki nga xamante ne moom mooy sëñ Saliou Mbacké te nee nañ tey bu fekkente ne ni la muy woote dëgg la sëñ Saliou moom moo ko yar def moom xam-xam kon woon toog ba màggal Touba di jëfe li nga xamante ne ni euh, da koo jëfee nee na ndax ab murid boo dee woote da ngay woote cant waaye doo woote li nga xamante mooy ay suus suus ba tax na tamit euh, ñu gis ci ay fecc ay sarxoole euh, yoo xamante ne ñoom nee nañu loolu euh, mënoon na ñàkk ni ki maarañes warul woon comporté wu boobu euh, comportement bi ñu su jógee dañuy dem si ki nga xamante moom mooy yaa awa rasul yaa awa rasul nag ñu gën koo ràññee si réseaux sociaux moom nag ginnaaw bi waajuram bu jigéen génnee àdduna ak léegi nag moom moom yaa awa rasul kenn gisu ko yaa awa rasul nee na nag mënul woon a tëb tëb rek nekkaat fi nga xamante moom mooy si réseaux sociaux nee ndax moom waajuram bu jigéen moom moo doonoon wéeruwaayam comme te kooku bu làkkoo moom dafa am loo xamante ne lu bëri lu wàññi ko ci moom ba tax na nee na nag bu amee lu muy digle rek mooy na nit ñi nañu gën a fonk seen ay waajur gën di foo di ak seen ay waajur nee na ndax moom fu mu toll nii waajuram ba tax ba tey dañu ne màggal Tuuba ñi gis nga mooy Bousse Ketchup ki nga xamante moom mooy Pawlish Mbaye dafa génn ah, ne ñoom ñooy influenceurs yi parce ah, amatuñ fi nee moom bu fekkente ne moom demul ah, màggal Tuuba tere li nga xamante ne moom mooy rasta nee na am na loo xamante ne mu ngi ci biir euh, màggal gi te bàyyi Faal li war ko mën a tere te nangoowu ñu tere loolu na lu dul di tere ay rasta nee na ndax euh, lépp luy xam ne jamono ji ni màggal gi léegi dañ ko cee xewal nee na loolu noonu ay yëf la euh, yoo xamante ne ni sëriñ bi mosu koo woote ca màggalam gi nee na ndax màggal gi léegi dangay gis nit ñi di ci fecc di ci def lu leen neex nee na waaye nag ñenn ñi moom bu ñu demee bay mbubboo li nga xamante ne ni moom mooy influenceur war nañu xool seen bopp nee na ndax ki nga xamante ne ni mooy euh, góor yàlla amoo benn droit di jël sa dàll moroomu góor di ko ko fëggal di ko duggal ci sa biir poche naka noonu ñu gis ki nga xamante ne moom mooy Boucher Ketchup nag génn na yéen a yàbbe ci kàddu moo tey jël dàll ki nga xamante ne moom mooy Lat Diop fëgg ko duggal ko ci biir poche am bi nee na te bu jaree mu defaat encore suba nee na dina ko defaat nee na parce que Lat Diop kooku teranga bu dul teranga Guinée rek da da ko koo ji fii ci àdduna bi nee na ndax kooku bu demee tey bay war a gisante ki nga xamante moom mooy sëñ Muntaxa moom mi nga xamante ne moom mooy xalif général des mourides toog fële ca xilaafa ga nee moom bu mbooloo bi bëree nee na looloo taxoon mu jël daal ki nga xamante moom mooy Lat Diop fëgg ko dugal ko ci biir poosam nee na wante bu doon woon loolu moom euh, euh, du def jëf jooju nga xamante ne ni mooy euh, da koy def ba tax na nag mu ne nag lam ci góobe dina ko garab nee na tamit nag ñi di wax naan waaw ñaa ñaa xarañ loo da koo sinap pour jéem a yàq image nee na ñaa mënul yàq moom image am te nee na kooku kooku jubluwu si sax pour yàq nag sax eh, eh, image am nee na ñaaxarañ loo eh, dafa filmer loo xamante ne ni da ko war a filmer nee na looloo tax ñaa mu filmer ko nee na kon bu nit ñi jël bu koo jaxasa ki nga xamante ne moom mooy ñaaxarañ loo ba tey moom police mbay génnaat encore doon ki nga xamante ne moom mooy buuse ketchup ndax nee na ko si moom ku nekk xamee na ko ki nga xamante ne moom mooy waali ko sekk nee wante moom musul jël daal waali sax dugal ko ci biir poosam nee na pourtant kooku ñëpp xam nañ moom da koo bëgg ndax waali kese moom moom lay topp nee na nag nit ñi war nañoo xolal seen bopp nee na nag alalu àdduna Euh, warul tax nit ñi di doxalee yenn ñi nee ndax jamono ji euh, da ngay gis euh, koo xamante ne da lay ne maa ngi dem Touba te duñ dem di liggéeyal sëriñ bi nee na foo leen fekk ñu ngay jokkalante ay xaaj di jokkalante ay sañse waaye jokkalante aussi ay lekk nee na tey influenceur bu te ne ni li ngay woote dëgg la da ngaa war a dem fële sa jumaa ja yóbbu fa ay ndox jox ko nit ñi waaye jël tamit ay benn di ko yóbbu nit ñi fi nga xamante ne moom mooy euh, euh, sa jumaa ja nee na wante toog ci biir kër yi di naan lu sedd di tëdd ka yeewu nee na loolu taxul ñu naan euh, liggéey influenceur ba tey dañuy dese ki nga xamante moom mooy moom moo wàdd moom moo wàdd na nekk nag présentateur fi la nga xamante moom mooy Sen TV moom na ni ki démb na gis nañ mu joxe démission wam na daanaka nag jamono ji nag Sen TV ña fa nekk na majeure partie bi bi yëpp ña ngay démissionné ndax gis nañ ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Sarr dem na te ba Cheikh Sarr demee ay weer lañ ci teg ki nga xamante ni euh, moom mooy démission ba bi euh, ci yi nga xamante ne dañuy jékki-jékki rek quitté fi nga xamante ne ni euh, D-Média te bu ñuy dem duñu wax kenn lan moo tax ñu dem ba da ngay jékki-jékki encore déggaat leen ñu ne leen ñu ngi ci beneen boîte ba tey dañuy des ak waa D-Media gis nañ ki nga xamante ne moom mooy Melo DJ Melo na nekkoon fa nga xamante ne moom mooy Walfadjri moom na niki démb nag euh, la poste fi nga xamante ne moom mooy statiwam ne jamono ji na day fekkee fi nga xamante ne moom mooy euh, waa D-Media ba tax na moom tey si suba si rek la jël fi nga xamante ne ni moom mooy euh, postam commencé animé moom ak Alima Ndione fële ca Zik FM ba tey dañ koy doole li nga xamante ne moom mooy Clara Clara nag ñu gën koo xamee ci turu Clara moom na nekk na soxna si nga xamante ne ni moom mooy Doro Gueye ñoom la niki ki barki démb ne dañu doon féete seeni anniversaire de mariage loolu tamit indi na coow lu bëri ndax ku ne xam ne ñun fi eh, Sénégal eh, eh, xamuñu loolu def ay anniversaire de mariage waaye anniversaire de mariage bii nii dafa wute ak ñi ni mel parce que gis nañ ni moom Clara def na li nga xamante ne ni moom mooy en waaye ba mu ko defee tamit def na tamit réception bu mag a mag a mag mu mu invité ci ay célébrité yu bëree bëri waaye ba mu ci aussi gis nañ ni tamit dañ koo muuraat mu dem sëyi fi nga sëyi ki nga xamante ne moom mooy kër boroom këram euh, fi nga xamante ne moom mooy kër Doro Gueye naam dëgg la nag ñoom ñaar bañ dalee sëy ak léegi euh, yàgg na euh, sa kër ga foofu la nekkoon waaye moom daal dafa defaat encore anniversaire mariage gën a beesalaat li nga xamante ne moom mooy seen diggante defaat aîné defaat mariage defaat lépp ba tax na ñëpp ñëpp ne ah loolu de moom moom lu rafet la parce que sénégalais yi tàmmuñu euh, di gis genre yi nii mais nag Clara bu defee loolu tamit war na koo mën a def ndaxam euh, macha allah yàlla may na ko buñ ci jugee dañ koy tëj ki nga xamante moom mooy Tange Tandian Tange Tandian nag moom na génnoon na fan yële euh, ci ginnaaw jël ay kàddu teg ki nga xamante moom mooy sëñ Abib si ba naka noonee nag ay taalibe sëñ Abib si ab patriote yi bëri génn dal si kaw Tange ne ko kaddu yi nii nga yëkkati waroo ko yëkkati parce que tey yéen kilifa diine bu ñu waxulee ngeen ne waxuñu comme bu kilifa diine génnee wax euh, da ngeen war a mën a déglu ay waxam mais waroo toog di yëkkati ay kàddu yu teggi di ko ko teg ba tax na moom Tange Tandian ni ki démb na gis nañ nag mu def vidéo di baalu ak ki nga xamante moom mooy eh, sëñ Habib si eh, di ko baalu ak nee na nag ah, da koy baalu ak en tant que eh, jullit ak moroomam nee na wante baalu ko ak en tant que sëriñ nee na parce que moom la mu def xam na ni du dëgg yoon nee na wante wax gi moom moo tolloon foofu ba tax na mu yëkkati ay kàddu yoo xamante ne ni ay kàddu déplacé la ba tax na moom Tange si biir vidéo bi nag nee na nag mu ngi si jéggaloo képp rek koo xamante ne da nga bokk si tarixay Tijaan waaye du jéggalu tamit képp rek koo xamante ne wax ji eh, gis nañu ne ni kàddu gi eh, eh, teggineewul naka noonu nag bi mu ko defee nag Tijaan yi am na si ñu ti jot génn ak patriotes yi ñooñu nekkoon rëccu na dina fekk jëf wees nga tey amoo woon benn droit ku mel ni sëñ Abib si génn di wax yow ngay génn naan da ngay contredire waxam wala da ngay jël yeneen kàddu yu ñaaw di ko teg li nga xamante ne moom mooy ci ay kàdduwam ñu ne ko loolu noonu tegoo ko fenn te ñoom nee nañu ñoom parewuñu sax pour bal ki nga xamante ne ni euh, moom mooy Tange Tandian ndax dina comme coow li moom moo ko commencé euh, nato xaar parce que ñoom it euh, tamit dinañ def li nga xamante ne ni moom mooy seen ay retour yi leen leen indi woon seen actualité people jaajëfal Babacar